aouzu billahi min ashaytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngi leen di ndokkeel di leen baal wax di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bii di Firi Guent TV officiel ñu ngi ñaan euh, ku am gént dugal ci page youtube bi nga bind li nga gént incha allah du ñàkk li nga gént danga ko gis foofu di wax ne lépp lu aju ci transfert d'argent yi audio whatsapp yi dañu ko arrêté gum ba ca kanam parce que li ma seetlu remarque mooy daanaka 90 pour cent ci laaj yi may am mooy yi nga xam ne def nga ci ay vidéo ba pare euh, ñu dem foofu ñu loolu mooy di gën a yomb moo gën a gaaw ci yow incha allah da ngay bind rek soo yeewoo ci sa laal balaa ngay jóg mën nga am sa réponse foofu incha allah dafa am juróom-benn wala juróom-ñaari gént yoo xam ne gént yu baax lool te bokk ci gént yi gën a baax ci li nit di gént. nga xam ne foo ko nit génte dana firi ci moom xabaar bu mbégte lool xabaaru bànneex lool xéewal lool boo ko génte nga bañ koo nettali loolu lañ leen indil tey bi ci njëkk mooy danga gént nelaw nga gént rey jaan danga gént rey jaan ci say nelaw jaan ju la doon wut la doon la fexeel nga rey euh, xeex ak moom barey ko ci biir gént wala da nga gént gis jaan nga jël yet dóor ko barey ko ci biir gént couleur jaan bu mu mën a doon melokaanu jaan bu mu mën a mel baax na ci gént walla nga gént rey jinax ci sa néeg wala fu mën a doon wala nga rey jiit ñett yi gént rey ci benn ci ñoom baax na ci gént lan lay firi day firi mucc ci sa pexe ay noon mucc ci ay xat-xat gàllankoor waaye day firi xabaaru mbégteeg bànneex lool baax na ci gént kon benn ñaar bi da gént gis néew néew bu nekk ci kees la wala mu nekk ci jàkk ay nit nekk fa nit ñi kenn xamul néeg néew bi ku dul yow yow yaa xam ne kii diw la waaye yeneen nit ñi xamuñu néew bi bokk na ci gént yi gën a baax dana firi xabaar bu neex xéewal la maanaam xabaar bu neex suñ ko waxee mën naa firi yaakaar yi mbir dana sotti mën naa firi tukki goo bëggoon mën naa firi takk soxna mën naa firi am boroom kër mën naa firi ëmb ci jigéen juy sëy mën naa firi am doom lu ne mën na ko firi maanaam lu baax te di xéewal lay firi baax na ci gént ñetteel mooy géntu weer weer def naa ci vidéo bu yaatoo yaatu wala ay vidéo yu baree bari yu yaatu sax lool waaye gént gis ko weer bu mën a doon nga gént gis ko ci kaw asamaan si wala nga gis weer wu leer naññ ci biir gént rafet biddéew yi wër ko bokk na ci gént yi baax lool yoo xam dana firi xéewal dana firi wërsëg dana firi xabaar bu neex ci aji gént ci jigéen bépp jigéen boo xam ne da gént changer sa ay meuble kër wala sa ay meuble néeg maanaam sa lal armoil nga gént ñu jëndal la bu bees nga changer ko wala nga gént jënd bu bees changer ko wala sa salon meuble ci kër nga gént ñu jëndal yu bees changer yi fi nekkoon ci gént ci jigéen bokk na ci gént yi gën a baax lool ci jigéen dana firi soppeeku ci dund maanaam changement dana firi ay xéewal dana firi réussite ci sa mbir dana firi xabaar bu neex boo ko géntee nga bañ koo nettali incha allah bu dee góor moo ko gént góor bu amul soxna wala bu am soxna dana firi beneen soxna bu bees ci ko am soxna ku amul soxna dana firi soxna baax na ala kulli xaal ci ñëpp boobu mooy quatrième cinquième bi da ngaa gént di jooy jooy ba say ronqañ di génn jooy yu amul soxna amul yuuxu amul dara boroom xam-xam yépp bokk nañ dëppoo ci ne gént di jooy ba say ronqañ di génn day firi mbégte day firi bànneex day firi xéewal day firi mucc ci njàqareeki xat-xat wala mucc ci tolof-tolof euh, da nga gént boobu mooy cinquième sixième bi da nga gént am koo xam mu may la tàndarma tàndarma la la may wala nga gént di lekk tàndarma defe naa def naa vidéo ci tàndarma baax na lool ci gént bokk na ci gént yi gën a baax lool ci gént dana firi lekk ko mbaa may la ko dana firi xéewal yu bari dana firi wërsëg dana firi xabaar bu neex dana firi yokkute ci say mbir boobu mooy juróom benn juróom ñaareel bi point mooy danga gént am gan gan la goo xam walla gan goo xamul ñoo ci yam xam nga nit ñi samay famille lan samay frère lan sama xarit la sama dëkkandoo la nga gént mu seet si ñu seet si la wala xarit booy liggéeyal gént daal am ku la seet koo xam ne kii diw la di sa gan day firi xéewal ak mbégte bànneex xabaar bu neex gan boo xamul kazalika ala kulli xaalin juróom-ñaara ngoog xëy na dana leen ci yokkal benn muy juróom-ñetteel bi euh, juróom-ñetteel bi danga nga gént dugal say tànk wala say loxo ci ndab di ko raxas euh, noté ma kon waaye dafa ñëw sama xel te bokk ci li ñu waroon noté say tànk da nga gént dugal ko ci ndab wala ci bool wala ci paan di raxas say tànk wala dugal say loxo ci ndab wala ci bool di ko raxas bokk na ci gént yi gën a baax lool dana firi tukki bu dee tànk la bu dee loxo dana firi wërsëg bu yaatu dana firi xabaar bu neex ala kulli xaal juróom-ñetti point ngoog yu baax lool ñu ngi ñaan ku am gént ngeen jaar ci yoon yi sàkku itam ci bokk yi ñu abonné ci suñu partage bi ci suñu chaîne bi yéen ñi nekk Facebook ñu ngi leen sàkku ngeen dem abonné ci suñu page YouTube Firi Guent TV officiel sur YouTube asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.